nu nusallimu kulla wahidin bismihi wa laqabihi qailan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki internet yi ñuy suivre di seetaan fmtv fii ci daaru alfa combaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sax ndokkeel jiital ci ziyaara boobu eh, kilifay tund bi di cheikh alxaaji jibril combaan waaye itam di ziyaare ñëpp imaam yeeg ustaaz yeeg tout eh, jiital ci imaam Pape Youssoufa Dieng et comme ni ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci FM TV fii seen mbokk la seen rakk seen doom ndey Adama Abdou Barham ñu fas yéene waxtaan ay tomb yu bëree bëri bu tënku ci benn daa ira muy al axlaaq ñu fas yéene ko def eh, waxtaan par waxtaan ba fu sob yàlla muy lan fas yéene waxtaane jikko yi ndax yaakaar naa actualité la boo xam ni actualité continuité la jamono bu nekk ñuy soxla jikko yi yi nga xam ni axlaax xasana la mooy jikko yu baax ak jikko yi nga xam ni razaa'il ya mooy jikko yi nga xam ni baaxul ndax kan mbokk yi yonent sallallahu alayhi bokkoon na ci mission am mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet lu tax ndax doomu aadama jikkoom bu rafetee léppam dafay daal rafet waaye jikkoom su baaxut daraam du baax jikko buñ neexee ñu ni mooy xol bi na baax xol bi lañuy defar ci nit ki bu baaxee léppam baax waaye itam bu yàqoo léppam yàqu mi ngi mel ni mbokk yi xol bi mi ngi mel ni kontóor bi ci biir kër gi mooy jikko yi fa daje kër gi mi ngi taal làmp kër gi mu ngi taal tele kër gi mi ngi alimenté ci courant frigo kër gi mi ngi taal ventilo waaye mbokk yi kii nga xamante ni mooy contrôle bu ñëwee day dem ci compteur xool lim lakk lu mu fekk ci compteur bu marqué loolu mooy xool ci nit loxo yeeg tànk yeeg bët yeeg yépp yàlla suy xool ëllëg dafay xool xol bi ndax rafet na baax na wala déet moo tax mbokk yi luqmaanul dafa amoon benn surga boo xam ne moo koy sàmmal mu ni surga bi dama bëgg nga rendil ma benn gàtt nga indil ma cër ñaari cër yi nga xam ni moo gën a baax ci moom mu dem ren di indi xol ak làmmañ mu toogaat jëmmi jamono mu laaj ko ñaari cër mu rendil ko gàtt mu laaj ko ñaari cër yi nga xam ni moo gën a bon ci gàtt gi mu indil ko cër ak làmmañ mu ne ko waaw démb làmmañ ak xol te làmmañ ak xool mu ne mooy ñaar yi nga xam ni su baaxee ci nit ki léppam baax na waaye su bonee ci nit ki lëppam bon na moo tax waa mu ni lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu fa lam yabqa illa suratu lahmi wa dam nee na doomu aadama ñaar genn wàllam làmmañam la genn wàllam xolam la bu ñu waxee xol mooy jikkoom mu ni ñaari subaaxee su baaxee mu ni li des deret ak yàpp la jëmm ji loolu kese la ba tax na mbokk yi pourquoi pas jikko yi ndax booy seet jamono eh, yar bi defar jikko yi moo des defar jikko yi moo des moo tax il fallait loolu ñu commencé ko ci nit ki bi muy yar doomam kon responsable parent bi wala boog mu commencé ko bi muy tànn ji soxna kan mooy jur ay doomam doom yooyu ñu mën koo yar ci anam ak yar goo xam ne ñu defar seeni jikko moo tax yonent a waxoon ni benn way jur mayul doomam lu gën mu yar ko yar bu rafet yonent itam bi muy wax dafa ni adabani rabbi fa ahsana taadibi yàlla ma yar mu rafetal sama yar moo tax gis nga mboolem ku war a taxawee doomu aadama pour yar ko bu tolloo foofu yàlla éliminé ko baayam moo ca gënoon a yey bi mu nekkee ci ëmb moom la papam génn àdduna ñu ni deetawaay yaayam moo ko war a yore mu toll ca mu génn maamam yi noonu kon borom bi yaral ko boppam mu ni sama borom yar na ma te mu rafetal sama yar moo tax mbokk bi ko alquran di tagg ci jikko jooju la jaar ne ko wa innaka la ala xuluqin azim dëgg dëgg dëgg dëgg yaa kawe jikko dëgg dëgg dëgg yéenantu yaa rafet jikko kon ndeke mbokk yi e, yu baax yépp bu laloo ci jikko baax na jikko ju baax waaye looy def tamit bu fa fekkul jikko ju baax jafe-jafe mën na am jikko ju baax nag moo lay pousser doo def ci penc bi lu ñu naan cam jikko ju baax moo lay pousser doo jëflanteeg sa dëkkandoo lu ñu naan accam jikko ju baax moo lay pousser doo jëflanteeg sa jabar lu ñu naan accam jikko ju baax moo lay pousser rafetal sa diggante say ñaari way jur demeet ba jikko yu baax lim war a defar ci nit ki moo koy defar ba fu mu mën a dem mu nekk ak moom kon mbokk yi jikko yu baax yi bëri na lool eh, yu safaan yi itam bëri na lool borom bi subhaanahu wa taala tagg yonantu ay yooni yoon yoo xam ni ci jikko la ko taggee wax naa la léegi benn ñaareel bi mooy fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan xalida alqalb lan faddu min xawlik kon mbokk yi yonentu xolom bu rafet jikkoom bu rafet moo tax vingt trois ans la def ci waxyu bi mboolem yonentu bëgg jiitu lim liggéey liggéeyoo ko kon donc loolu jikko moo ko ko may comme nag laltaayu jikko baa ngi nii buñ ñëwee ci émission bii di ñëw incha allah eh, ci fan yu néew suivre leen seen bii di TFM TV fii ci Daaru alfa su ko defee mbokk yi bu fekkente ni abonné woon nga bisimilah ml vidéo bi bu fekkee woon jotowoo abonné nag ci seen bi bii euh, euh, suñu seen la ñun ñëpp euh, aboneel te ngay aimé vidéo yi loolu mooy jàppale seen bi kon mbokk yi mu leen jox dig daje ci fan yu néew mu nekkoon seen rakk سين خارت سين دوم داي سين دوم إتم آدم عبد برهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته